bu fekkee ne Cheikhou Tidiane Chérif am na benn cër ci yàlla ñaan naa ko ma dellu kaso ay yoonu yoon. loowaat waat kaso ci barke Cheikhou Tidiane te bu ma tooñ. d'accord man moom awma lu may regretté kaso. bari na ñu ma sopp musuñ ma indil añ musuñ ma indil reer musuñ maa seet jàmbatuma ko nag. bëggatuma doon sénégalais ci kayit dama koy dénoncé nekk gambien du dund fii. Jamra ak yeneen organisation ndax am neen daara alxuraan bu ñuy jàngalee julliti alxuraan. ndax tabax nañu juma ndax ndax ndax ndax gis nga lislaam du jàpp nit rek yóbbu kasu maa ngi tawasul ci darajaay Cheikh Oumar Touré yàlla neen ma jàpp moo gën ci man dafa am benn jigéen kilifa la dafa ma soxla topp ma rek ma foog de sax ci ñi may nopp la xam nga gars yi dañuy list bi dafa bëri xaw ma ñaawaay bi moo leen gondi xaw ma nu mu demee mais list bi daal gudd na mm. ndaw si fexe ba ñëw toog fii mu ne ma dama lay gërëm mu ne ma suma jëkkër mu ngi liggéey barab sàngam man suma salaire trois millions la mu ne ma xam nga kan laa doon tëddeel ma ne ko déedéet mu ne ma dawalkati sareet bi ci koñ bi mindaan bi mooy togg añ jox ko ko bu suba su jëkkëram liggéey mu yónni mindaan bi marché waa ji suy delloo ji boor bi lay yéeg merci merci beaucoup de choisir la marche di net la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu ngi leen di mbokk yi di leen kontaanee bu baax a baax ci andin beeg wétaliku gi mbégte ak kontaante la ñuy am ci daandoo ak yéen saa su ne ci ay jotaay tey nag ñu feggoo ak suñuy naataango people 221 fa siyéen am jotaay ak Cheikh Ahmed Cissé bi nga xam miin nañu ko bu baax a baax ci réew mi xam ngeen ni ça fait un moment boo xam ni dafa doon jëflante ak yoon ginnaaw bi mu génnee nag rédaction Senbuzz feggoog people 221 fa siyéene am xanaa rek pour sëriñ bi Cissé dañ lay encouragé bu baax a baax di la gërëm aussi si jotaay bi ak disponibilité bi. maa ngi leen di fay nuyoo di fay nuyoo ñi leen di seetaan eh, xëj na yéen yéenay féetewoo laajte yi waaye dafa lu ma bëgg a wax loo xam ne fooguma ne di ngeen ma ko laaj. Mhm. mooy ne dafa bari woon ci nit ñi moytul site internet yi moytul site mhm. bari ci nit ñi seen première wax mooy xanaa léegi di nga bàyyi site yi ñoo la dugal ñoo la dugal. absolument loolu c'est pas vrai. ndaxte wax ne siti ñoo la dugal mooy ne ñoom duñ nit ñu baax yaa ngi leen di tuumal te ay gor leen ay liggéeykat leen benn. Mm-hmm. ñaareel ba mais yaa ngi wane ne dama feebal ba ñoom ñoo ma ëpp doole ba mën maa dugal su boobaa yow nawloo woo ma. di leen xamal it ne niñ daan ñëwee suma kër di ma interviewé bari na ñu ma sopp musuñ maa indil añ musuñ maa indil reer musuñ maa seet jàmbatuma ko nag mais site yii ma téye seen micro. Mhm. ñoom ñëwoon neen seet ma commerce centre fële police centrale ñëw neen seet ma fu ma nekk te juguñ di promote suma business te liggéey boobu moo ma doon dundal ci laa doon teralee suma nawle yi kon ñoom juguñ sax di créer possibilité ma mën a am. loolu maa ngi koy tontu envers fii. Mhm. jëm ci ñooñu doon wax ne moytul siti maa ngi leen di wax ne siti seet si woon neen ma ndax ñoom ñi ma doon moytul siti seet si neen ma question la. site yi ñu ngi doon jàpp ci suma liggéey mu may teral ndax ñoom ñu ngi ma doon jàppale question la. donc mënuñu maa dugal ndaxte gisaguma ku téye micro koo xam ne soo ma ëppee xam-xam teg nga ci ëpp ma xel ba ma ëppee xel teg nga ci ëpp ma fit wala ba mën maa dugal loolu mënul am. Mhm. Euh, du xeex laaj la ak tontu nit ki da lay laaj lu ko neex mais am nga soit tontu ko lu ko neex. absolument lépp lu ma mus a génnee ci kàddu wax ko rek man la neex. daf may neex nag nit ñi bañ cee d'accord wala d'accord mais man maa ko choisir waxee ko noonu. am naa plusieurs façons bu ma ko mën a waxee mais ni ma neexee rek laa ko waxee saa moom dama bëgg mu leer balaa ñuy commencer waxtaan bi. duma leen gërëm. Mhm. ndax ngërmande bi ca kanam la. ndax nit gërëm na nit tey xas ko suba mais gis naa seen taxawaay te rafetlu naa ko. jërëjëf Cissé bu mën a doon laaj un petit peu nga wax ma condition de détention yi nga xamee ni gannaaw bi nga xamee ni yoon teg na la loxo moom nga nekkee woon lan nga ma si mën a wax xalifa mii. Mm-hmm. toogoon na fi ak galo ma ne leen maa ngi tawasul ci darajaay Cheikh Oumar Touré yàlla neen ma jàpp moo gën ci man. te xamoon naa ko préparé woon naa suma bopp teg suma business ci yoon ba xam kan moo may toggal man balaa may dem. bu fekkee ne Cheikhou Tidiane Chérif am na benn cër ci yàlla ñaan naa ko ma dellu kaso ay yoonu yoon. te ci wasifa ñaanee te gëm naa ne nangu na. Hmm. donc képp ku ma bëgg dee ma sóoraale kaso man. waaye nag ñaan naa yàlla bu mu doon kirim neen ma tooñ rek di ma dugal. Hmm. mu may jëriñ man mbégte laa am ci kaso. te dina delluwaat. dinaa delluwaat ay yooni yooni yooni yoon kaso li ma ko gisee mooy place la pour nga am temps xalaat sa bopp xalaat la pour nga xam yërmande yàlla xam nga ne yërmande yàlla yegg na ba ci pax paxu yaram yàlla da cee def karaw def ci ay pax. Mm-hmm. bu sa yaram bi safara si nootee ba nga tàng mu génneel la ndox mooy ñaq. Mm-hmm. soo paree ngelaw li wara a lor la. Mm-hmm. karaw yi ñoo koy kale. mooy waral ngay sango boo sangoo tilim génn loolu mënoo ko xam mooy temps biñ la jox man dama daan dugal liñ di làng waxtaan ba nelaw douze minutes ñu jaay la ko mille francs pour nga wax alo booy wax di yëkkati di xool minute daray tax nga valoriser teraanga yàlla. tey boo foogee ne dara nga man néeg bu ma nekkoon am na milliardaire bu fa nekkoon. Hmm. ñaari milliardaire ay multimillionnaire ay boroom xam-xam ak waliw bu mel ni man ñu ngi fa woon xam nga kan mooy suñu chef de chambre. Hmm. dawalkatu seret c'est ça quoi musuma fanaan ak suma jabar lal wala néew na de wala nit man kenn may dëkk ba ci fii man kenn dëkk mais ci kaso gi maag góor ñoo daan bokk lalu un mètre. patience aw ma ci dara ndax man doomu buur laa lu ma bëgg nii rek laay def mu ñëw. Hmm. su ma bàyyee ma yar ci mbëggeel du dóor du saaga du xas te lu ma jox la. mais ci kaso laa xamee patience li ma doon daw dafa bari ci yàlla ak ci jamono man dara jafewu ma gis nga visa bi nit ñi di ñaanloo takk damaa dem rek teg baaraam ñu foto ma jox ma musuma dem ak ambassade di def interview pour visa. Mhm. jabar musuma jafe xaalis musuma jafe mais ci kaso laa xamee valeuru temps valeuru moyen chaque 24 heures ñu tëj la tijji la benn deux heures de temps bu ñu lay tijji da ngay valoriser temps boobu yàlla na ma yàlla delloowaat kaso ci barke Cheikhu Tidiane te bu ma tooñ man moom aw ma lu may regretter kaso mais nag am na lu ma fa jàngee am na lu ma fa jëlee te ci kanam tuuti daa dees ko xam. d'accord. Mhm. comprendre mhm. benn détenu ya fa nekk du ma leen kaasal awma ci ñoom kàddu ndax am neen mbokk ku fa tëdd am nga ndey am nga bàyyi ñii am neen jabar ak doom seen mbokk yi ni ñuy demee ay papier bi list bi ya war a jàll dund bee seer neen ko xeexee ngir seen mbokk yi génn man su ma mbokk yi ñoo ma daroon suma am di jàmm yeeg suma suma xarit yi soxlawuma keneen. Mm-hmm. donc xeexaluma leen aw ma kàddu ci ñoom. su ma amee kàddu ak ñu may xeexal mooy garde pénitentiaire bu Sénégal. ok congaan keroog bi ma demee rëbës damaa toog mu yàgg ma okk benn boy na ko kañ laay dem rëbës mu ne ma yegsi nga. maa ngi fekk ñii di seetaan télé ñii di ataaya ah, ñii di ñii di fo di ree mm-hmm. pour man leneen la garde yi ma di leen xaar foog na ay dëmm leen ndax musuma dégg lu rafet ci ñoom ma fekk leen ñuy ay murit yu bëgg Sëriñ Tuuba fekk ñii di taalibe Maodo yu ko gëm fekk ñii di taalibe Baye Niass yu ko gëm mm-hmm. mais fekk leen ñuy ay patriote mm-hmm. dëgg-dëgg xam nga ne garde pénitentiaire ñaan na ñaan na Euh, mhm, autorisation. autorisation pour uh-huh. autorisation. simmi toneem dem ci dëkk yi gën a suufe mhm. ngir benn détenu la jabaram dee mu yóbbu ngër man dem. d'accord garde pénitentiaire fayeeku na salaire di ko joxe ba mu jeex. nit feebar na. Mhm. garde pénitentiaire yóbbu ko ci docteur jël xaalisam jëndal ko garab. gis na ay garde nit ne dimbale leen kii den koo jàpp te amut. fu mu wootee may ko mu woote. mais teraanga yi duñ ko waxal garde yi. te ma wax la ne congaan mhm. ragaluma garde yi faalewuma leen seen chef bokkaandi mhm. ëpput ma salaire directeur ba li may fay su may liggéeykat moo ëpp lañ koy fay yaakaaruma leen ci xaalis ragaluma leen ci àddina ndax mënuñ maa jàpp mënuñ maa tijj mhm. mais boo nekkee ci parab nga gis fa lu rafet te kenn waxu ko boo honnêté da ngay génn ne lii dafa rafet. lu tax nga def loolu dafa am ay privilèges yoo amoon ci kaso bi généralement li ñuy faral di dégg condition générale yi nekk ci prison yi dañ koy faral di dénoncer naan jaarul yoon ak dafa métti alors yow boo jógee rëbës bi ñu bari di fi dem xëy na di yëkkati ay baaraamu tuuma jëmale ko ci ñoom yow ngay ñëw di seede le contraire aussi dafay xaw a jaxase xel ay privilèges yoo fa amoon la walla. man xam nga privilège daf ma ko defal ci àddina. ok kër Cheikh Oumar Touré laa juddoo te tànn ma ko. Hmm. muy borom wilaya tuddee ma la. bi may bëgg bàyyi yëguma ko privilège la man dama mos am privilège fu ma dem am privilège gis nga waa Sibeer suñ ma daan yóbbu. Mhm. adjudant moo naan dugal leen ko suma oto ma dugg ci oto adjudant bi dem privilège la yàllaa ma ko jox. mais garde yi defaluñ ma lu luñ defaluñ ñeneen am na garde yoo xam ne te mënuñ maa xool woo ma téléphone parce que xam neen xam na mais lu su ma gisee fukk yu rafet gis ñaar yu ñaaw tamay nit ku baax lan laa war a waxtaanee. lu rafet li mais am na garde yoo xam ne tey nii ci caméra mënuñ maa xool di ma woo xam neen man xam na mais nag duma gis fukki garde yu def lu rafet benn bu bon ma tànn bu bon bi ne dafa bon. man faris laa mais aw moon privilège ci ñoom su ma amul carte du ma génn woote. yaa ngi dégg. bu hmm. heure bi jotee ñu ne ma ràpp tëj. mais nag damaa gis mbaax di ko wax moo tax bi ma woowee oustaz. Hmm. Maamar bi tey. Hmm. ma ne ko damaa bëgg suma daara ji. garde pénitentiaire seen doom yi di ñëw mu ne ma ñaata leen ma ne ko ëpp nañu mil mu ne ma bu la ñëpp joxee ku ne benn xale amoo espace moo tax maa ngi wut ay R plus 5 loué ko. def ci ay lal. képp kuy xam ne sa yaay garde la wala sa baay ma jàngal la alxuraan doo fay lekk doo fay docteur doo fay dara da ngay jàng te yàlla tax loolu laa leen mën a dimbali. d'accord parce que nag wax wax ma jëfa ko gën. d'accord waaw yàlla mosul fay wax bàyyi jëf. d'accord mais garde yi moom. Mhm. joxuñ ma privilège yaakaaruma leen. d'accord ragaluma leen itamit. ñu bari di dénoncer yow gisoo ko fa aussi ñu bari di dénoncer ni dafa métti condition yu normalul du loo xam ne aussi lu jaadu la pour ñu tekk nit kon yow jotoo gis loolu. mais ci bitee gën a métti. parce que ci biir moom neen la jox mburu jox la jaga dóor la ko subaak ngoon jox la télé nga seetaan fayoo courant mais ci biti gis na gis na ñu ñu génne mais mosu ñu génnee nit rëbës ngir courant bi dafa cher man gisuma métti néew ma amu fa nit da ngay màndu neewuma lii am na fa amu fa li ma gis man Cheikh Ahmed. mooy gisuma fa lu métti. parce que tey euh, amoon na jamono mais ñu waxante dëgg yow mi ma bëgg sax kasoo gënoon ci ma parce que ñett teew li ma doon daw dafa bari benn ma tëdd ci armeel bi ma tëdd hôpital wala ma tëdd kaso mais kasoo gënoon a sedd ci man. dem naa fa gis nga ni ma leeree gën fa am yaram cerveau bi gën fa doxee ngay jàppale ay doomu aadama li ma fa dugal ci alal ëpp na 15 million billaahi wallaahi talaay ci dimbale doomu aadama yi. donc tey euh, gisuma lu métti kaso man. Cheikh Ahmed gisuma garde bu bon gisuma garde bu toroxal nit. te seen texte yi lim leen wax bu ko garde yi woon kenn du leen gërëm. d'accord très bien ban moment nga yëg ni vraiment yaa ngi dund lu métti wala nga toog benn moment boo xam ni xawoon nga sentir ni. am na benn injustice boo xam ne dundu nga ko ci li nga xamee ni yoon mu ngi la ko doon. non bi ma yëgee lu métti rek mooy bi ma namee jigéen foofu moom yëgoon naa lu métti franchement. mais à part ça ça va ah. très ak téléphone. loolu rek laa fan na moon jigéen téléphone à part loolu moom kaso gi aw ma problème. mais yëg injustice mooy bi ma toogee ñu may laaj biri góor jigéen ndax ma naqari ba ci kanam yàlla. ok waaw mais baal naa ak maam Maxtaar. ok baal naa ak Jamra. Hmm. mais loolu rek moo ma métti à loolu. Hmm. non su ma méttoon ma wax ko. ndax loolu da nga jàpp ni du lu Ahmed Cissé du défendre ku xam Ahmed Cissé dina xam ni du défendre. waaw boobu. you know ak ak nga ma mun a xoolee kilifa bi am ni man accusé ma loolu tamit. loolu rek moo ma métti mais à loolu. Mhm. aw ma naqar ci dara. très bien euh, Ahmed Cissé ñu toog dégg nii am na ay nit ñoo xam ne sax Ahmed Cissé ci kàttanu yàlla yàlla jaaral na seen dugg lislaam euh, ci loxo yi Cissé ndax loolu da nga koy dëggal. si si maa ngi ko leen doon tooñ léegi sax. Hmm. ma ne dañoo xiifoon rek xam naa xam nga garde à dafa metti lekk du ñëw nangam ay nigérien leen ma di leen teral ñett nag moo taxoon ma di leen teral benn bi bi ñëpp weddee Baye Niass den koo gëm. ñaareel ba euh, boo Nigéria den ma teral man première 40 millions bu dajee Nigéria laa ko amee ci àddina première 60 million bu dajee Nigérien moo laa ko amee biir Nigéria. Mm. ñetteel ba mooy ay doomu aadama leen ma di leen fonk di leen teral kenn ki ñëw na ma saa we want to be like you dañoo bëgg mel ni yow ma su ma sekkeree mooy bëgg Baye Niass ñu ne ma woo oh, xam neen ko. bàyyi nangam nangam ma ne leen waaw ñu ne ñoom taalibe bàyyi la ma ne du noonu bunt bi mooy lislaam ñoom ñëpp ñu ne nu ñuy def ba dugg ci loolu ba wax leen ko ma dem au commissaire bi. Mhm. ma ne ko ndax mën naa tuubal ñii mu ne ma seen affaire la ma tuubal leen dugal leen ci lislaam di leen jiite julli te noonu laa leen taxawoo ba ñoom ñëpp ñu génn ci kaso gi ma door a génn. mais li ma fa jox wirda yi ëpp na 46 personnes. ñu bëri ma yeesal seen wirda taalibe bàyyi amuñu woon bés. taalibe Cheikh Ahmadou Bamba yu sell yi ñoo am bés ci kaso gi di jàng ay xasida mu doon lu baax te rafet nag ak taalibe Maodo yi taalibe bàyyi xeex naa fa jàpp ci bañ am bés. ndaxte foofu ci rëbës ci rëbës ndax bés boo xam ne dañuy jàng xasida sëñ Tuubaa seytaane du fa toog jàmm fa am te dafa rafet mais bés boo xam ne dañuy jàng Taysiir ak Maodo lam ca ñaan ak nam ñaanee yàlla ci asmaul husna mhm. dafa rafet mais ndax daf koy yàq nga jàng xasida Baye d'accord ma yónnee jaam yoo amul Kaolack ma jënd ay ay taysiir jënd ay burdu jënd ay bagage yu bëri préparel ko gars yi di leen ñaax ci bëgg Cheikhu Tidiane yi ndaxte moom mooy sultaanul wilayat waaye mooy miftaahul wilayat alors fi may jeexalee Serigne bi Cissé dafa am benn geste boo xam ni jot nañu am écho nga def ko sa bisu anniversaire fële nga xamee ni mooy rëbës ci chambre ba nga nekkoon ba mu juumul chambre 121 la loolu motivé woon sa bisu anniversaire nga sàkku ci nit ni ko lenn rek laa bëgg sama teraanga mooy nga jënd xar indil ma ko ma bokk kook détenu yi nga xam ne ñoom laa bëgg bokk nekkal foofu waaw man chambre 50 laa nekkoon hmm. mais ñëpp a ci amoon daanaka Pape Diouf bébé baas ndekki li ma indil 107 personnes ñoo si ndekki mu des dinga mën a imaginer ni mu bare te Pape Diouf a ko indil boppam ba bunti rëbës. ah bon Pape Diouf moo ñëw fexe ba mu dund ba mu dugg. you know Ba jox na ma ay millions yoo xam ne Père Mangone moom naa ko ci jox 500000 na leen jox wàllam. Hmm. Lat Diop bàyyiwut ma. Euh, ak ñoo xam ne bëgguñ ma tudd seen tur mais su may mbokk. man nit ñee ma bëgg dama daan ñëw rek garde dama xam nga diw ma ne ko dee mu ne ma dugal na cinquante bi ma ne ko seetal ku ko soxla lépp lu ma fa lekk su ma gémmiñ gi maa ko liggéey. waaye nag premier jour ba dernier jour. Mhm. no ba seen bës sax bàyyiwuñ ma man àddunaa ma bëgg xam nga su yàlla bëggee nit. Mhm. day woo Jibril na ko Ahmed Cissé ma li dama ko bëgg malaayka yi bëgg la suuf si door laa bëgg man su ma bëggeel ci jaam ñi ci yàlla la jugee. d'accord donc su ma jour anniversaire. Uh-huh. dama ko feete parce que gaw ma ne kaso day tax doo feete man su bopp laa njëkk bëgg maa ko feete sañse lu baax fu ma romb ñu xàllal ma yoon ma def dara ju mel ni Paris bi ma ko simmee dama ko maye kaalawu feete suma bopp tiim suma bopp di tagg suma bopp waa jikko ceddo bi laal ma ma naan jëri ma ca wàllu alsan samba yaasin seti biraan jama jàngo bi su ma gato yi di ñëw may dagg rek may yónnee xar yi hmm. jot naa six seize non sixteen seize xar ah waaw dugal ci néeg yi dugal fële jot naa ay plus de cent ganaar su ma liggéeykat yi nii rek indil leen ma ñetti xar boisson du dugg tu vois hmm. chambre 31 hmm. naa leen ñaari mayo yi ligue profession di sol bu bula ak mayo yoo xam ne ku ne sa tur laa ci bind ngir championnat you know sàmbur cinquante mbër yi ma jëndal leen ku ne blouson. d'accord loolu rek laa mënoon def ci kaso mais du génn rek. topp télé yi di wax rek. jëfa ko ëpp solo. am na solo geste bi am na solo dernière question bi ñiy faral di commentaire ni waa dafa yar di ko woon léegi sax dina yaru gannaaw bi nga xamee ni yoon teg na loxo ndax dañuy gisaat beneen Ahmed Cissé bu wuteeg la nga xam ne moom lañ mënoon chew bien sûr ci say njaay ak kàddu yi nga xam yaa ngi ko doon yëkkati. non mais man musuma yëkkati kàddu yu ñàkk yar ñoom ñoo ko mënta digérer rek li may def mooy dimbale leen ñoom oyofal ko ci ñoom quoi mais pas kaso yar 36 ans laa dund 3 mois yu manqué laa def kaso fi ma jaar yëpp mënu maa yaru kaso war maa yar c'est pas vrai mais ñoom ñu suufee ñi mënul comprendre Cheikh Ahmed dinaa woyofal kàddu yi ci ñoom ngir ñu mën a jëriñu. benn bi ñaareel ba euh, dama xam niveau naafeq Sénégal fu mu toll. Hmm? Mhm. léegi damay bokk ci naafeq yi rek comprendre nga. Uh-huh. gën a guddal sikkiñ bi di def ay dara di lewetal kàddu yi di ko riime di buqati aaya yu baax ak ay hadis di dóor léegi-léegi nga tagg benn sëriñ gars yi moto su jox la addiya nga dem la vie est simple sur Sénégal ah. jarul sa jëf del wax lu rafet rek. d'accord ah, jëf ji lu mu ñaaw ñaaw ñoom ça mais wax ji leen bañ. te maa ngi ci société bi mënuma ci génn. ma nekk hypocrite rek. mais naturalité bii ma doon. Mm-hmm. man je préfère rester nii. d'accord mais nag société Sénégal moom. Mm-hmm. xam nga dama leen xam dama la ko daanoo man dama xam réew mi. sa man saa yu ma bëggee yëngal Sénégal mën naa ko yëngal. mais léegi ne dama koy yëngal positivement ba yow mi nga xam ne rakk nga ci man. ñoo mm-hmm. bokk daara. Mm-hmm. nga mën a fier te ñu ne ma mag la. mais xam nga léegi ba ma posté da ngay xuloo rek. c'est clair gaañ bi dafa xamadi kii ku nangam tàndayam la ko waa kii doomaraam la ko waa mais tey mën naa changé. doxalin beeg image ba yow nga fier d'accord comprendre mais au man aw ma lu may changé. c'est clair c'est clair Serigne Cissé alors du ñàkk am na kàddu yoo xam ne moom nga bëgg a tëjee ginnaaw bi ñu amee mbégte bu baax a baax si jotaay beeg partage bi Ahmed. kàddu yi ma bëgg a tëjee sa simple. Mm. parce que waxoon naa ko Macky Sall Serigne Mountakha li mu defal diina gis ngeen ko. Mm. université bu rëy bi. Euh, Amadou Ba moom la jox guvernement bi. you know bokkaande mu jox ko kaso yi procureur mu jox ko wàllu yoon mais awra la ko dénk. fekkee amoo xamoo awra li may wax mooy kooy kum ko dénk ci réew mi dama ko jox sexologue la mën naa koo yore mën naa koo toppatoo te jaamu yàlla la congaan hmm. jaay garab rek jarul vulgarité laboratoire yaa ngi ay milliards te ko ko moom billaahi wallahi tallaay damay jaamu yàlla ci li may def dafa am benn jigéen kilifa la daf ma soxla topp ma rek ma foog de sax ci ñi may nopp la xam nga gars yi dañuy liste bi dafa bëri xaw ma ñaawaay bi moo leen gondi xaw ma nu mu demee mais liste bi daal gudd na. Hmm. ndaw si fexe ba ñëw toog fii mu ne ma dama lay gërëm mu ne ma suma jëkkër mu ngi liggéey barab sàngam man suma salaire trois millions la mu ne ma xam nga kan laa doon tëddeel ma ne ko déedéet mu ne ma dawalkati saret bi ci koñ bi mindaan bi mooy togg añ jox ko ko bu subaa su jëkkëram liggéey mu yónni mindaan bi marché waa ji suy delloo ji boor bi lay yéeg rimbax ko rimbax yu baax wàcc mu ne ma à cause de ni ngay waxee moo ma convaincre ba ma installé TikTok su ma portable jëkkër mu abonné ci yow di la seetaan ñu ñëpp ñu d'accord jënd ànd laa buri bàcc na ma mel ni ku tiim naa fu gerte ba bër seet liggéeyu mu ne ma sa garab yi ak ni nga ko moo ma musal ci njaalo su ma 4 x bu ñuul bi yàqu xam nga kan moo ma ko jox. Hmm. ki teewaloon Baloré Mali toog naa juróomi at toog na moom juróomi at. Hmm. raay yéene rek la la lay def xam nga raay yéene. déedéet raay yéene mooy la. mooy su awra bi jugatul nga xam ne da ngay xool sa jabar rek naan ah mënoon naa ci dara. sëriñ gi nga génnee suñu diggante ñu waxtaan. Hmm. ma ne ko man suma micro bi daal géej naa tàkk mu ne ma c'est normal maanaam xamoon naa ne stress day tax mikoro nooy waaye ci kaso laa ko xamee. d'accord dugg naa ci douche bi jël saabu yëngal yëngal neexal ko laare jugal laare booy laare yëngal yëngal mu bañ a taxaw bi ma major waxtaanale ci laa door a comprendre te Sénégal ñëpp stressé en fait faaw ñu génnee réegi que noo man naturel bi baax na lan mooy naturel ak lu dul naturel oto bu amee essence defoo ci essence dafay yàqu day toog rek fay. Mhm. donc foog ñuy remplir Macky Sall na ma dénk wàll woo ma jaamu ci yàlla. suma garab yi ma di ko jaay nit ñi di ci dimbandikoo. d'accord mais di sensibiliser nit ñi. Mhm. ci éducation sexuelle ndax ñu xam. nan leen koy defee ak fan leen ko war a defee ak kan moo ko war a def congaan xam nga ne éducation sexuelle bu ko ñëpp xamoon kenn du njaalo hmm. réere gi moo tax ñuy njaalo bu la leeree ne la ngay sàcc noonu mën nga ut can waxtaan mu dagan la nga fanaan ci guddi ulay njaalo comprendre nga donc waxtaanee mbirum sexe c'est na rien à ak heurté ak yàq nit ñi ci dund la bokk wax naa ne wàllum sëy teraanga la ci àddina ñett rek ñoo ci jaarul Iisaa mhm. ibnu Mariam Hawa Adam ku dul kii hmm? mhm. loo màgg-màgg loo foor foor góor ak jigéen la jur te mhm. tooguñu woon di wirde ba nga judd donc hmm, pour wax suma ñi ma bëgg ne ak Cheikh Ahmed buñ mënul gis man lii dama ci gis jaamu yàlla dama ci gis dimbale ay jaam te dama koy def mais nag ci façon bu extraordinaire façon bu élégant façon boo xam ne ça ndax maa ngi dénoncé suma nationalité Sénégal. Mhm. jël bu Gàmbi di dem Gàmbi di def sumay vidéo te xam nga ma dugaat ci wax ji. baal ma rek bul faale temps bi faaleel waxtaan bi. Uh-huh. parce que yow yaa am exclusivité. mënu mënuñoo yar ku am niveau ku mel ni man juste ci Sénégal mënu ko li nga mën mooy denc ma benn place mais yar ma mënoo ko ndax tey su ma dénoncé suma nationalité sénégalaise. nekk Gambien dem Gambie toog di def sumay vidéo je suis Sénégal mënu ci dara. dara la ci mënut. te Sénégal ñi ñuy gën a consommé ci wax ju bon kenn nekkut Sénégal. internet bi denn tubaab bi denn àdduna bi dëkk kaw bu ndaw la. Mhm. di wool is a small village. ku mel ni man mën nga am fooy jaar ak moom ba mu am kersa am lu mu eres mais soo ko forcé rek parce que bind na application. bëggatuma doon sénégalais ci kayit dama koy dénoncé nekk Gambien du dund fii. su ma buggee def suma vidéo mhm. waaxu dem ba Gambie taal suma live waxee kon ni ma ko bëggee ni ma ko sattiree mu concerné waa Gambie ma ñëwaat ba xam ndax justice daf may du ci mën dara <laughs> maanaam justice yi mën neen koo défier mhm. mais su ngir bokkee réew mi nit ki di kilifa nga xam mu xam ngay jëf mu jëf Jamra ak yeneen organisation ndax am neen daara alxuraan bu ñuy jàngalee julliti alxuraan ndax tabax nañu jumaa ndax ndax ndax ndax gis nga lislaam du jàpp nit ak yóbbu kaso ndax préparé neen ñi nekk rëbës ak yeneen kaso yi buñ génnee stigmatisation bi ñuy dund ci société bi. Mhm. nan la ko société bi war a bàyyee. maa ngi am ONG bu mag bu paree dana wan nit ñi ONG islamique nan la war a doxee ak lan mooy l'islam l'islam daal bu passé bëgg doomi adama ak yërëm ko rek du diine. feeg yaa ngi xool nit di ko yéene lu bon yow sa jullit yaa dafa des. yonentu boo defaan lu jar a rey sax bu lay rey dalay rey ci yërmande mais du la rey ci mere la. te lislaam musta fajee xaste ak saaga bokkul ci diine ji lislaam yéwén lay fajee lislaam fàttali lay fajee lislaam yërmande lay fajee. très bien am na solo sëriñ bi kon daal maa ngi wax ne suma garab yi daal mooy numéro yi affiché. Mhm. Euh, docteur bi ñëw na génn na ñi dëngale. Mhm. neen ñëw ma jubbanti ñi gàttale ma guddal ñi tuuti ma réyal. ñi nooyle ma dëgëral ba mu yegg ci këj. Mhm. loolu mënul ñàkk maa ngi gërëm encore une fois. seen euh, bés. ak ak euh, people 221. xam nga ne keroog biñ ma porté plainte. Mm. people 221 moo ñëw ba suma kër moo ma yëpp ma dem jëli suma plainte ñu ñëwaat ba may uyu ji suba teel la fi ñëwaat ñu àndaat. suma jaaru bi nga xam ne boo ko takkee moom àdduna. Mm. ba ma ko tekkee moom laa ci wóolu na ko yóbbul ma ko suma kër. comprendre nga. Mhm. kon neen bàyyi di wax ne sit yaa koy dugal site mënuma dugal. d'accord am na solo. da nga maa ma génne benn kàddu. wallaahi jamais. mais dañ koo bokk nga téye micro ma téye micro. tu es libre pour laaj mais je suis libre pour lii. pour tontu waay leen bàyyi. Mm. tey laa leen gën a jàpp. bët bu set ñëw leen ñu waxtaan. yàlla baax ku la bàyyiloo sa nit mu ngi jàpp nitam. c'est clair bi ngeen doon dox di ñëw central ñu bëree ngi tëdd Europe ñii tëdd Sénégal ñi naan ndeysaan dama koy yërëm. Mm. et eh, yow li dafa métti ñi naan da koo mooy mais yéen yéen a dagg seen nelaw di dagg seen été di ñëw. ba pare di publicité garab yi muy jaay may mën di dimbale nit ñi kon yéen ñoo bokkoon xeex bi. jërëjëf Cissé. maa ngi yéen ba géej gi fer. incha allah Cissé. leen ñëw chaque jour. Mm-hmm. chaque jour dinaa ñëw. non yow ànd laa buri boole wu ñu suñu magu daara nga. waaw ñu yaroo ndoor. waaw sa pap di suñu kilifa ci ñun donc lépp lu ñu taxawee rek muy seen buzz du People 221. Mm-hmm. c'est en dehors de li nga xamee ne quand même moom nga représenté. Mm-hmm. kon maa ngi leen di gërëm di. jërëjëf Cissé. di gërëm waa cybercriminalité yi biñ ma jàppee joxoon neen ma gëdd jox ma cër fonk neen ma mhm. di gërëm euh, deuxième cabinet juge bi di gërëm procureur bi di leen wax ne man it victime la bi ma tooñee askan wi niñ defee dëgg ci man mhm. ah ñoom dañoo waat maa ngi xaar ju def dëgg ci ña ma tooñoon di wax ne Pape Diouf parce que wéy wu rëy bi ma wéy mhm. yëg nga ko dafa def lu rëy damay dem wuyu ji ko baaramundi wala feneen kañ la Eh, dineen jàpp bés bi mhm. yéen yéen a may dar ni dar ko ndax mënu def lu ngeen bokk incha mais nag mhm. jigéen ñi laay invité cinquante jigéen laa soxla kenn ku ne maa koy jox cent mille xam nga seerul cinq millions la boo baatare Pape Diouf mais ku ñaaw bokkoo ku sew bokkoo da ngay am forme da ngay rafet da ngay baax ma ñëw jëlal la taabul indi oto yoo dugg. est-ce que du lii lan la lan doon toppee tamit. li ngay non mais man ma moom suma xaalis. ok invité yi jigéen Pape mm. Diouf wuy ma kaay ba may la 100000 nga baatare ko Jamra yóbbu ma ci police. lii de laa wax na jigéen ñu rafet ñi. connecté suma TikTok bi ma jëlanteek ñoom ñu dajaloo dem uyu ji Pape Diouf 50 jigéen laa soxla bépp góor na xaar ma jumaa ja su ñëwee ma ne la xaaral laaw xaaral rasul bugguma góor bu topp. jigéen ñu ñaaw jéggal naa la mais boo ñuulee baax na boo xeesee baax na nga rafet rek. Hmm. su ko defee nga ñëw ñu ànd. d'accord ci Pape Diouf ma wax ko jërëjëf. ba pare na teggi tànkam sonal na booy torop dégg naa dañ ko <laughs> ay baaraam mu nekk yu nga xamul. seen buzz ak na réew. seen buzz ak people 221 di ko jaajëfal di leen jaajëfal ci àndun bi jërë ngeen jëf.